ekip équipe yëpp bu ñu accompagner fii si Mbacké di nuyu di ziar bu baax suñu xalif général des murit ak njabootam yépp ñu fu teewi di féliciter di remercier tam suñu maire yëpp sama collègue maire yëpp ñoo xam ne bàyyi nañu seen yitteem ñu ñëw toog fii ñëw ak accueillir yi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di remercier suñu commencé tey basculement bi tey si mbakke foo naa lu am solo la ndax président lan la laaj laajte mu ne équité territoriale mooy doomu réew bi fépp fu ñu nekk ak fu ñu yeewoo ñoom yëpp ak benn carte d'identité la am ndox ñoom ñoo yeem réew mi ak avantage réew maa ngi occasion pour man may remercier acteur yëpp xam ngeen ne am na juróom at fii Sénégal ñu dënk benn doom bu Sénégal mu ne nekk Excaf suñu processus mutation bi mu nekk fii mu nekk président bu Excaf mu nekk monsieur Diagne monsieur Diagne c'est l'occasion de vous féliciter et de vous encourager aussi et je crois qu'aujourd'hui vous devez accompagner le processus je crois que vous avez pris toutes les dispositions nécessaires pour que les choses se fassent au bon moment et à des prix accessibles Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et de remercier l'ensemble des acteurs qui travaillent autour de ce projet. Une date a été donnée, c'est le basculement intégral à fin janvier de cette année. Je pense qu'on peut le prouver, vous devez pouvoir prouver qu'on peut nous faire confiance et que des jeunes Sénégalais, des acteurs de ce pays peuvent répondre positivement à leur engagement. En tout cas, je félicite et vous donne rendez-vous en fin janvier pour que tous ensemble, que nous disions, en fin juin plutôt, pour dire nous avons réussi, on nous a assigné et que nous avons la capacité de réussir quelque chose. su boobaa lay gërëm ñëpp maa ngi leen di sant ngeen baal ñu nag si toogaay bi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant jërëjëf. merci monsieur le ci turu sëriñ Bachiru Abdul Xaadir bu ñu nuyoo sëriñ Abdul Mbàkke nuyu nañ ñëpp nuyu ministre ak le directeur bi nga xam ne moo fi teewal ñëpp euh, ñaan yi dañ koy soppali ay ay ay ay ñaan yeneen beneen façon bu ngeen kiwul mooy euh, ministre dañu lay ñaan yow ak Babacar ngeen xam ne yéen yéen a jiite loolu ak Ndeye Tické ngeen bàyyi xel te xam naa ne sax yéen a ngi koy def ñii nga xam ne dañuy fab seeni alal di ko investir nit ñi bëgg cee jariñu lu ngeen leen dimbali doyul dañuy jël rek benn exemple man lu may wax mooy maa ngi leen di ñaan kenn ku ci ne diiran li ngay exercer nanga ñaan rikk ñaata ci ñoom ñoo fi amoon problème ñàkk tegu ci yoon ma dimbali ko bam tegu ci yoon te tëjul ñaata ñoo fi juddu ma teete leen ba ñu màgg foofu lañu leen di xaar suñu bëggee Sénégal gu mel ni Amérique Babacar li may wax am nga ci witness président Obama bi mu ñëwee te fekk Amérique am problème Ford am problème daf banque yi am problème daf leen a bail out belul out banque yi dafa bel out Amérique parce que su ko belul out woon dañuy daanu àddina nag dañuy dox foo daanoo rek sa moroom jóg kon noo ngi leen di ñaan te di leen encourager ci li ngeen def te di leen dénk Sidi ndax Serigne Bassirou nee na Sidi bu amee problème nee na moom moo am problème ndax taalibe dafa jiitu àddina bi kon bu sa taalibe amee problème yow yaa am problème gis nañu na nag euh, kilifa gi jiite lépp muy président Macky Sall ci at yi ko yàlla may mu di ko jiite bu sañoon Sénégal jële naa ko fii yóbbu naa ko fële lay am loolu nag mënu koo am ci lu dul ñi mu tànn ñu di ko jàppale ñoom ñépp ñu am gis-gis boobu te jàppale ko ci loolu kon ñoo ngi nuyu ñépp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum